ko mère Penda wax convaincre ko ndax mi ngi commencé di douter ak di xalaataat euh, parole yi ko Ndella doon wax ak li ko mère Penda wax lépp ñu jàll ci say mi nga euh, na ni saasi mérite wul loolu te xam na bu baax a baax que ni ñoom euh, li leen yitteel mooy fawee xolu saasi ndax mënuñoo bëgg démb ca Ndella te ñu ne saasi la ñu bëgg ñu jàll ci Ndella mi nga xam ni nag moom bàyyiwul mu ngi continuer di di yàq deru ki nga xam ni moo di wurus ci ki nga xam ni moo di saasi donte nag li muy wax lépp dëgg la moom li bëgg mooy protéger famille wam bu baax ba tax na mu ngi puus saasi ci loxoy maam Ngoone mi nga xam ni jàpp na ni moo gën euh, ki nga xam ni moo di euh, saasi waaye ulay anta moom it d'accord na ci ndax jàpp na ni lu jëkkëram bëgg rek moom da koy bëgg waaye nag li mu jàpp si mooy saasi mën na am mu changé wurus waaye cendeela gëmul loolu moom li mu gëm mooy tôt ou tard euh, saasi dina gisal boo xam dina xam ni wurus du jigéen ju baax ñu jàll si ulay anta mi nga xam ni moom bañ na ni du yàq diggante saasi ak wurus ba tax na lim xam ci wurus du ko wax saa si di yàqol xelam nag di yàq seen diggante ba tax na mu bëgg rek saa si bàyyil boppam topp xolam ba gis li nga xam ni rek gis na ko ci ki nga xam ni moo di wurus ñu jàll ci saa si mi nga xam ni su moyuwul nag fi muy mujjee du neex ndax moom nee na gëmul ay sëriñ ba tax mu koy waxtaan ak maamam waaye nag ki mu ko seexal di euh, penda wurus ci ay sëriñ lay dox kon moom saa si su moyuwul ni kenn dina def ba mucc ci penda wurus moom du si mun a muccee noonu ndax Anta ah, mi nga xam ni moom li mu bëgg mooy Ndella daal di bàyyi di dugg ci diggante wurus ak eh, Saasi eh, di yàq ndax jàpp na diggante ñaar ñu bëggante kenn waru cee dugg waaye Ndella moom tey la gën a dogu tey la a taxaw pour séparer leen ndax jàpp na ni relation boobu a dem ñu jàll ci Mame ni nag mi ngi commencé eh, gagner du terrain ndax nag dafa ñëw daal di defaral Saasi di ko toppatoo waaye won ko ni it da koo bëgg waaye Saasi itam xamal na Mame Ngoné itam que ni da koo diggante ñaar bu ñu gënee di toog di waxtaan rek mbëggeel daal di si juddu saa si amaana su boobaa mën na bëgg sax ki nga xam ni moo di maam ngoonee ñu jeexal ak wurus mi nga xam ni su moyuwut fi muy mujjee moom it du neex ndax dafa demoon ci benn maire ngir nag mu jàppale ko ngir ñu génne ule anta kër gi waaye maire boobu mel na ni moom li animé wurus animé wu ko ndax wurus xaalis la ko bëggoon a fay waaye maire bi dafa bëgg a jël téléphone am woo woo euh, ule anta daal di koy wax dëgg bi yëpp loolu nag jaxase na Penda wurus ba teg ko ci action boo xam ni xamul ni mu ciy génnee ndax suñ ko boolee yaakaar yaakaar naa dina yàqu kon mbokk internet di foofu la yem ci épisode 91 bu série nitu intérêt ma jox leen dig dëgg beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàttee bës ci cloche de yi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel ngeen jëf